remercier partenaires yi dooree ko ci KP KP suñu kalpe bopp bi nga xamante ni nag ñoo ko moomal suñu bopp duñu taay ci di leen wax def leen ko seen yëfi bopp boutique solution jàkkaarloo ak groupe Walfadjri fu ngeen ñëwee kenn dootu ko présenté boo fi duggee sa aajo faju mu ngi noonu ñoom ñooy partenaires yi ñu leen di jaajëfal bu baax tey woo ñeneen ma jigéen Diop Dieng Sall mi nga xamante ne rejoindre nañ ci plateau bi ñu ngi lay nuyu. lay fay ajaratu. di la ziar ça va maa ngi lay jaar bu baax a baax di la ñaanal jàmm nag di nuyu Omar Bun Xataab ak mm-hmm. Souhaïbou Diop ak docteur Meng ñuyu téléspectateurs yeeg internautes yëpp ziar euh, waa kër Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad ñaanal ko yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram. dëgg la paa bi daa defe de man damay consulter du ma <laughs> paa bi loolu la moom. arrêté wul docteur Mbengue parce que paa bi xamul docteur Mbengue bi lu koy paa bi ñëw fi di ma wax léegi naan ma mën a ko góor gi. jàpp ko ci saa. xaw ma ko may rek rek daal lay xel man ba mu pël ñu buñ maa ko. ah ñoo ñoo dafa ñàkk xam rek mais xam na docteur ñii ñoo naan docteur. ah ñii ñoo naan docteur waaw loolu moo tax. donc. le docteur de. ma sooy moom say sooy wax. soo du moom de saamoo la. Ah, wax dëgg yàlla nag de lii moom tay amoon na waxul woon kii du wax. déedéet moom moo wax di wax ñu wax bi muy nuyoo waxuma de. moom kii wax. ah vraiment nag man nag. kii mooy na alaaj waroon nga maa bàyyi nag. non day leeral day leeral paa bi am na ñoo xam ne xamuñu. aussi lu jigéen parce que da ngaa yegg point bi. voilà kon nee ma baal ma àq nag da nga maa tooñ. ñu ngi ko bu ko baalu. li ñu koy tooñ ëpp li mu lay tooñ. plateau bi dëgg rek ay ca ñu jëli victime du net. pareegule. ah non dama ne ko tey wisoo daa fàtte wis tey. yow mën nga tooñ. <laughs> déedéet mu dégg naa saani ko wisal ba mu neex la jàmm ngay wis. <laughs> waaw waaw wax dëgg wax dëgg da yàq élan wu nuyoo. Mhm. lakkale ka. Adja indi tey. Euh, damaa boo xam ni wax dëgg yàlla ëpp na dix jours ma koy gis ci réseaux sociaux yi mais comprendre mu woon lu ko tax a jóg muy Anta Babacar. Mm, waaw Anta dara nu wane ak ñàkk seenu ñàkk seenu pauvre fa ñu dooree. ci ay jamono ci ay jamono yooyu yëpp ginnaaw nag ba ko Anta wanee mm. daal gaa yi di ko moke. man comprendre mu tax ñuy ko taf parce que ndaw si comprendre gu ma ko ba tax man mosuma ko suivre nag damay wax dëgg rek bokkul ci ñu may bàyyi xel ndeke vidéo bi loolu la doon expliquer ñu dem xool yi première vidéo bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu gis ci réseaux sociaux yi ñu ñëw xool baayu Anta Babacar moom itam li mu wax ci histoire bi ndaw si nettali ñu ñëwaat ci borom réew mi ak it lu tax gars yi di dal ci kawam di ko diingat ci ñàkkam googu ak pauvre googu ñu pauvroon ñu dem dellu siwaat ci juddu ci ñàkk laa leen fekk ba benn cin di takk tàkk suñu kër xàmmee naa ràññee naa fekkee naa sama suur naaw yaay te suurut boo jaaree ci ñàkk dëkk ci kër goo xamante ne jaañee fa ëppoon leneen loo gis lii nettaliwuñ ma ko ça c'est mon enfance je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche ça c'est mal ma ko nekk très mal me connaître dañuy jéem a def lu leen neex pour décrédibiliser cette candidature. moo tax lu nekk di nga ko dégg. dëgg rek mooy mujj. Mm-hmm. ba may juddu man ba may xam courant bés lampe euh, kii interrupteur. courant tàkk mm. fukki at ñaar laa am. ibiro bi ne ndox tuuru fukki at ñaar laa am. Mm. toute ma vie quatre heures du matin laa yeewu di dem jàngi ba ville. sama euh, yéen xam nga xale yi dañuy am ay ay euh, animaux de compagnie ñii dañu am peut-être seeni petit chien ñii am truc man sama animal de compagnie c'était un serpent yeew je vous dis des réalités parce que loolu laa gis am ñaari mag yu góor nekk jigéen kese mhm. ki topp ci man est revenu dix ans plus tard ci tool boobu laa màggee xam naa waga xam naa koso kosaa xam naa xiif xam naa rafle voilà lii mooy benn mix la boo xam ne am na ci internet bi bu ñu taqalee ay kàddu ndaw si ci moment bi muy wax ni ñàkk naa yooyu am ñu ne nag ndaw si waxtu mi wax ni jamono jooju dafa ñàkkoon ba yu baree bari amu ko ñu ni ci la baay bi jëndoon terrain bi nga xam ne moo nekk ca euh, wetu euh, cinquante ñu déglu baayam dellu siwaat parce que dama am tool boo xam ne maa ngi ko jëndoon depuis 1994 boobu fii ñu bari xale la ñu wàaju dugg 94 deeni biram ndaw ma jënd fa tool sama doom yi fa lañ daan fowee damay jënd ay kuwaat kuwaat moto bàyyi ko foofu ñetti kuwaat man sama tool boobu nekk seulement dix neuf hectares duma ko sax tudd mais xam na ki koy def ki ma ko def bu ko déggee dina ko xam ma jënd tool boo xam ne 1997 ma xëy xëy de miiré naa ko ba mu daj fii Sedima nekk man maa ko jënd Babacar Ngom moo ko jënd nekkul sax ci turu Sedima 1992 ki démb rek chèque gu millions laa yónnee chaque quinze jours presque 8 à 9 millions laay fay chaque 15 jours gendarmerie ñoo fay ñoo fa nekk. voilà kii mooy euh, waajuram xam naa gars yi nag ñu ngi calculer 92 1992 ak léegi ñu ngi xayma ndaw seet ñaata at la amoon nee na bi mu am fukki at ak ñaar mi ngi ubbi robinet wax yoo xam ne bu ñu demee ca ko monté ci internet ba fekk wax ñu si mitit yi muy nettali wuute naag baayam at yi mu wax ni ci la jëndewoon terrain boobu est-ce que lu jënd terrain boobu ci jamono jooju di nga daj yooyu mitit gars yee koy wax nag du man lii ab misaal rek euh, vidéo yi bari na commentaire yi bari na euh, ñi ko clash bari na ñu ko weddi bari na mais ñoo jël lépp indi ko ci plateau bi ci laaj bi nag mooy ma jigéen lu tax ñu bàyyi ba ndaw si dugg ci politique ñu doog a dugg file parce que nit la ko xam ne baayam def na ay preuve ci réew mi mi ngi bay exemplaire la ci nit kiy góorgóorlu di jéem di teg ay jéego parce que mi ngi commencé ci ñàkk ba fi mu toll léegi nag ndax ndaw si ni ni candidat la damaa bëgg réew mi war na tax wax li muy wax gars yi di ko di naan ko lii ngay wax ba nga koy wax ak sa baay at yi wax ni ci la jëndoon fee kon mënoo woon a ñàkk ba ñàkk lii waaw son yi bu fa dëgg yàlla de Anta dafa bëgg dugg si dans la peau du nôtre parce que mënuloo euh, nekk koo xamante ne ni ñu ngi gis vidéo bi tout jamono ji sa papa di jënd ay hectares yi hectares kooku mënul ñàkk lu mu lu mu lu mu lekk wala mënul ñàkk loo xamante ne nii war na ko të te jàpp naa ne sax diggante bi ngay juddoo bay am sept foofu noonu xiifte warul la waroo ko dund parce que même su fekkee lu am la sax lu lu nekk réalité hmm. waaye jur du lekk di bàyyi doomam bàyyam benn néeg la amoon de wax dafa ñàkkoon ba benn néeg la amoon waa loolu laa lay bëgg a wax ma ne lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk da ngay gis yoo famille boo xamante ne bu fa dëgg yàlla amuñu mais lu ñu am lu mu tuut tuut si ñoom way jur yi dañuy préféré jox seeni doom ñu lekk bu suur ñoom bu ñuy xiif ñoom xiif rey leen kon donc man jàpp ma ni même su fekkee li muy wax ni ah, réalité la sax moom waru ko mën a dund mhm. kon donc 94 ak 92 boobu am di jënd ay hectares. Mhm. boobu noonu foofu ñàkk mënu fa nekk. Mhm. gis naa nag ay ñenn ñoo xamante ne nii ay camarades de classe am la ñu woon ñu dugg ci biir TikTok bi di ko wax ne ko immaculé ak euh, école beneen école bi muy wax te mu nekk Wakam xawma Almadi mhm. foofu ku ñàkk du fa jàngee parce que euh, frais ya fay nekk ak yee euh, yeeg yi ngay fay ak yooyu noonu yëpp donc ku ñàkk du def loolu balaa ngay tal dem fay ay école yu baax day fekk d'abord yow nga lekk ba suur mhm. gis naa tamit beneen femme bu nekk ci xawma ban dëkk saay su otom bi rombee rek mu ngi koy tooñ naan ko anta dimbali ñu nag booba tey yaa ngi xëy na ci ci ci suñu dig-digal bi bëgg dara warul tax tamit ngay inventé yoo xamante ne nii. soo ah, inventé bàyyi am pourtant wax na ko de ñàkk googu forcé boppam waaw ñàkk googu papaam bu ko dundee taxul moom mu dund ko say waajur mën nañu dund ñàkk yow mi mujjee juddu yàlla suñu borom ubbi say euh, waajur ay xéewal dem ba jamono neex kon donc bul forcé sa bopp nit ñi. que ni da ngaa bëgg a doon jiit dégg naa ko itam ci ay kàddoom mu ni mënuñu gouverner sans moom donc koo xamante ne ni mënuloo gérer fi nga xamante ne ni moom yow yaa ko jiite bëgguma def euh, seen publicité ay nit yu bëri ay jomet sax lu ñuy def si rajo bi ñu fay liggéeyee ñëw nañ di kalaame doxalinu foofu noonu ni mu mel donc yow ñooñu noonu mënuloo ne mënuloo leen a gérer. Hmm. ba satisfaire leen si li ñu nekk kon kooku boo nee da ngaa bëgg a yoru réew pour pour lijjanti jafe-jafe yi nga xamante ne ni askan wi ñu ngi koy dund. d'accord loolu man duma ko gëm son yi bu jóg. jërëjëf ma dafa mel daal réew mi euh, benn jànq la wala ab xale bu góor la boo xam ne da nga inversé euh, parole waaw des damay kii waaw des fois noonu damay ah, kii Assane nee na naa koy kii waaw Assane nee na man waaw ñun boobu ñu ngi euh, daal réew mi ab jànq la wala xale bu góor la boo xam ne ku ko bëgg ñu fàttali la sa démb wala yow boo toogee nii lii mooy dëgg ñun la hey lii du dëgg ndax Anta bëgg naa réew mi war naa tax toog wax ba pare lu ëpp ci réew mi wala leen ci réew mi ni ko li nga wax du dëgg. waaw li mu wax nii man dëgg la. dëgg la parce que Ngomeen mi ngi sama wetu kër maam Pikine. Hmm. foofu lañ dëkkoon ñoom. waaw donc li muy wax nii euh, dafa di dëgg. ok peut-être après li wax naan ay immaculé yu kenn xamul après bi papaam commencé jekk xëy na la fa jàngee je sais pas hmm. mais lii muy wax nii lu am la. ñu dëkk Pikine xam nañ loolu. Hmm. donc muy loo xamante ni man pour man même booy wut booy wut jarul di toog di raconter ta vie. parce que Babacar ngoom di papaam ku ne xam na dégg na ku ko xamul sax dégg nga ni mu débuté. si bi muy déggu ci ganaar yeeg bay taxawal sédiment. Hmm. donc loolu soxlawul xam nga lan la lan la man pour man Anta lan la waroon li mu def nii c'est de la mauvaise communication li mu waroon def mooy. Hmm. lii laa am pour Sénégal. lii laa xalaat pour Sénégal bien que mais ñi ma ci jiitu. ëpp ñu ma xalaat pour Sénégal. Mhm. parce que samay morom ñoo fi nekk ñii di jël gaal ñii di dem ñii di def naka su dul noonu man nag lii laa opté. Mhm. bien que nag màgg naa sam am. yàlla wërsëgale ko maa ngi sant yàlla mhm. mais man vision bi wala lii laa am bu ma joxee Sénégal lii laa am pour pour liggéey ko Sénégal waa loolu la mais raconter sa vie man gisuma utilité bi gisuma ko franchement d'accord waaw kon mi ngi mel ni nettali euh, li passé moo ko jural ñu gars yi ni ko daal li nga wax Anta am na lu ci nekkul dëgg. Hmm. ndax ku ñàkkoon ci jamono nangam sa baay du jënd terrain nangam. Euh, xam nga Anta euh, booy yi daa am fu ko dugal mu daanu. Hmm. parce que Anta bi mën nañ ñëwee nag candidat la rek. ñu bari dañuy posé wu question kan mooy Anta fa la jigee booy commencé ci internet bi des fois sax nga gis naan ñoom ci affaire u ndengal di ko di génne yenn yi. Hmm. léegi pour weddi loolu moo tax moom mu dugg ci waaw ah, parce que moom bi mu bëri bu mu nee bëri nekk candidat rek dafa ñëw nekk candidat di uti parrainage am ñu bëri jël ñu kon sax au mais bi ñu demee ba xam ne dëggal na boppam te bëgg na doon candidat léegi nag moom il faut que mu tontu booy pour wala leen ni fi ngeen ma dëkkal nekk mu fa xam naa seeni i problème xam naa seen i jafe-jafe xam naa seen i lii alors que ñi juddoo ci banlieue màggee ci banlieue daf ci am loo xam ne bëri na ci ñoo xam ne ñàkk lu ko mais lu ñëpp partagé la parce que suñu réew yi ñoo tolloon foofu mm-hmm. mooy rëbina mbedd nga dëkk Malika di rootee teen ba tey ji am na fa ah nga dem ci kër goo xam ne amul courant mais avec le temps ñu suñu réew yi di màggee di développer ak ci côté infrastructure dañuy dem ba loolu peut-être dina am gox yu mu am mais du fa bareeti waaw mm-hmm. ah, parce que tey ji yow boo taxawee nga ni nga am ku ne la est-ce que xam nga dex meew xam na loolu dañ koy toon ñi ci banlieue bi pour que wala ni est-ce que yow mën nga banlieue bi ak yooyu mm-hmm. yooyu yëpp da ciy xew loolu tax pour man booy ñoo ko poussé ci lenn ba mu génn moom pour bëgg leen a tontu léegi nag booy kepp ko mm-hmm. parce que ante ku xamul woon la bari na ñu doon wax ci moom xamuñu ko woon. pour xamal leen boppam nag moo tax mu dugg ci xeetu communication bi mais benn jamono jaru ko woon. jaru ko waaw ah, parce que dat yi mu joxe bu ne 85 la juddu ah. Mhm. léegi ñu ne 92 léegi ñu calculer bi bàyyam taxaw di wax naan jënd naa li ak lii foofu la booy yi defee calcul parce que booy ci internet danoo muus. danoo def calcul ci at bi mu joxe ak ki mu ndaw. parce que maa ngi dégg sax bi mu naan sama ñaari mag mais foofu boo xoolee nee na kenn ki mu judd après munoo wax nit ki. moo mag ba pare nga ni mi ngi juddu dix ans après man. ok maanaam boo xoolee ci côté communication bi. dafa dugg ci loo xam ne pour man ñoragul candidature am dafa ñoragul. parce que te man dama ci peese anta avant xawuma ko. Mhm. am na fu ma ko tegoon. mais lii tax na ma jàpp ni candidature am ñoragul pour mën a ñëw di yootu réew. Mhm. waaw parce que bu dee ni li ci internet moo ko mën a perturber à ce point. ba mu génne di def benn erreur bi ci côté communication mooy wane nii dëgëragul nag. parce que pour man booy ut réew daf ci am yoo xam ne da ngay dëgër pour mën ko dékku. Mhm. mooy saaga yi xas yi parce que un leader lan soxla boo xam ne tey day mën di encaisser yenn critiques yi yenn yi dal ci kawam ba tax moom du mën a génn def yenn erreur mais yenn coup yi ko booy njëkk a do te booy yi bi ñu koy dóor xam ci la. Mhm. moo tax na pour xamal leen boppam moom mu ñëw dugg ci lii booy jël dat yi mu joxe ak date ba baayam doon wax naan jënd na terrain fii ak fii ñëw génneel ko ko moom Anta jàpp naa ni booy dañ ko maanaam booy dañ ko victime la da doon victimiser wu ba mujj doon victime ci benn mbir mais je pense que euh, def def na erreur moom ça c'est sûr def na erreur mu ngi noonu woon dugg ci jeu boobu mook sëñ Baara lekk temps bi te mi ngi naan ma waxtu wa te yàgg dama ne ma nii. dama ne des na dama ah, des na lu bari. loolu laa des na lu bari. d'accord mais jombul dina ci waaw dina ci kii bu kii rek après ñu kii rek euh, alaaji moom mi ñu bari di dal de. Hmm. baayam am na tool ci réew mi am na ñuy laaj réew mi seen baay amuti tool. waaw defut dara ci réew mi am na ñuy laaj réew mi seen baay mënuñu la wax ne saa baay def lii ci réew mi. Hmm. moom au moins mën naa woo mat nit ñi sama baay fi def lii. Hmm. ndax dat yooyu gars yi def yu wuute ci li mu wax jaroon na ñu di ko moquette di ko teg ci internet bi di ko def ba dugalal ay reetaan di ko tontu naan ko ba ngay jàngee at bi ak bi ak bi est-ce jaroon na ko. waaw man de li ma yaakaar mooy euh, bu ci njëkk. mooy mooy Anta bu fekkente ne daf ne dafay nekk candidat euh, man pour man façon bi ñu ko defee d'abord moom moo baaxut balaa ngay déclarer sa candidature dafa am nu mu waroon a njëkk a def. ci naka. parce que Anta fi mu toll nii bu lay présenté li mu lay présenté mooy li papaam def. Mhm. loolu la lay présenté. ah léegi loo bëgg. waaw mais man dama ne xale la. Mhm. nit ki boo nekkee xale am nga benn avantage am am nga ay ambition politique. Mhm. man bu ma ko doon wax damay wax ne. na préparer élection bala di ñëw bii mu bañ cee wax maanaam commencé def ay acte yoo xam ne di defal nit ñi di def yenn affaires yi maanaam nga préparer sa bopp nga xam ni boo ñëwee ay nit ñoom ñoo lay wax ne ah diw de jàmbaar la mais fi mu toll nii loolu amu ko maanaam moom amut lu mu mën a wax ci boppam léegi nag Anta dafa fekk ñoo xam ne dañoo bëgg a génn ci ndóol mu leen di jaay ndóol lan mooy loolu. ni ndóol mel mu ñu ko wax lu bu ñu ko fàttali parce que dañoo bëgg a génn ci ndóol. ni mel mais non alaaji yàgg ngaa gis nit ñu naan baax na ñuy fàttali ndaw ñi. non ñi ñi séen ci kaw fan la ñuy jaar. ba yegg xam nga loolu du moom. waaw baax na xam nga loolu du moom. du moom loolu loolu papaam. même moom déggoo mu ni ba mu mu am fukki loolu loolu solo xam nga loolu moom waru ko maanaam moom ubbi robinet papaam mooy li pour mu ubbi robinet papaam mooy li ci biir wax ji sax dafa juum nee na benn ci na doon tàkk seen kër ñu ah. am na kër yu cin tàkkut nee na seen kër bu fa benn cin di tàkk benn cin mooy benn doom la ko waxee benn repas waaw xam nga moo tax ma ne la benn repas maanaam añ wala waaw waaw xam nga yaa yaa ko dimbali mais ban bu ma neex ma ne ma ñaari ci nag ñetti ci nag yooyu comprendre parce que non xam nga xam nga tey yow tey béti hmm. attention de am na kër yi borom barke yoo xam ne boo demee dañuy taal fii plat yu bokkul waaw def ci léegi yow kooku bu ñëwee di wax yow naan la sunu kër benn ci dafa doon tàkk man mën naa koo dugal. ci hmm. koo xam ni benn cin pour moom bu tàkkee ci kër ndóol la. lapsus rek wala comprendre c'est que mën naa ko faa dugal xam nga yow fi mu doon rafetal ngeen ko. Hmm. mais tey da ngay dem ci kër yoo xamante ni bii dañuy togg lii togg lii togg lii togg lii. nit ñi di def seen choix lii lañ bëgg a lekk lii lañ bëgg a lekk comprendre nga waaye laa ñu denc ko nga ñëw ñu ne la loo bëgg a añee fekk ne am na plat yu bari yoo xamante bi pare na léegi nit ku jóge ci kër gu mel noonu bu lay expliquer naan la suñu kër benn cin dafay tàkk mën nga koo déggee tamit ne moom pour moom benn cin war a tàkk ci kër c'est que nu dugg ci kaaru xam nga fi mu toll ni ko booy di naan yeew laa doon fawal xam nga loolu hmm. Euh, reetaan la kii kii moo Anacounda. yeewu la yeewu la jaan bi ñu wax. Ah. waaw waaw <laughs> yooyu fi mu dugg baaxul. maanaam euh, moom dafa waroon a ñëw xam nga tey jii mu ñëwoon sax assumé wane ni moom kat doomu borom barke la lii ak lii mais man dama jël sama yoon. gëm naa sama réew gëm na gis naa yu bari yoo xamante ni mi ngi xew am na yu bari yoo xamante ni xam naa ko maanaam jaay boppam ci loolu quoi maanaam bañ a dugg ci ndóol gi comprendre nga parce que ànd boo xoolee même ay otoom yi mu yor da ngay gis ni benn force boo xam ne mi ngi koy dégager parce que oto bi fi yor man gisuma oto bi ku ko fi yor de. déedéet gars yi <laughs> li muy wax kon moom Anta ni muy politiquer fii di wax ni sareet la waroon a yéeg. sareet pour wane ne xam na sareet ah mais bu ko yàlla teralee ba mu toll fii nag xalifa Sall yéeg na sareet yi xalifa Sall sareet yi di guddi bàyyil xalifa <laughs> Sall di dox c'est que c'est que gars yi dañuy ñëw fekk ñu sonn ñu leen di gën a wax ne maa la gën a sonn d'accord gars yi nag dañoo bëgg ñu tane ñoo xamante ni dinañ leen jàpp yëkkati leen c'est que politique bi jamono juñ toll nii ay discours la ay gis-gis yu leer yoo xam ne moom ngay wax sénégalais yi hmm. parce que politique bi ay jamono la woon nit ñi di làqatu di wane ni aw ma dara ak loolu pour ñu yërëm la fal la mm-hmm. léegi nit ñi dañ lay déglu dégg la xam nga bi mu waxee rek Omar a ngi nii li mu expliqué gis nga gars yi dañoo dem jëli ji année ba mu juddu ñu teg ko moom dafa wax parce que bi mu nee bi may am 12 ans mm-hmm. loolu la wax gaa yi jëm jëli quatre vingt cinq léegi demal douze ans ñaata la teg fi ñaata la quatre vingt cinq ak deux douze waaw ñaata la sept ans ah sept ans ak ak. ak te moom 12 ans la wax waaw bi may am 12 ans ak 92 la wala bi may am 12 ans. non non 92 bi papaam di jënd hectare yi ak. papaam 92 bi mu judd loolu papaam la waaw papaam la waaw léegi lii la nu mu tudd. waaw xam nga léegi bu gaa yi defee calcul bi rek. bu ñu defee calcul bi 7 ans la. 7 ans lay am 12 ans la wax. 12 ans la wax moo tax booy jàpp bu gaa yi defee calcul bi rek. après da ngay passé à côté. parce que bu nit ñi dañuy jàpp ne da nga leen di nax. te fekk ne loolu mën a man dama ne moom dafa waroon a préparer candidature pour beneen yoon. parce que sénégalais la comme sénégalais yëpp am na sañ-sañu laaj réew mi waaye nag booy laaj réew mi tamit euh, am na ñoo xamante ni bii tey parce que euh, sa papa am xaalis mën na doon handicap ah parce que tamit gars yi dañuy parfois xam nga jamono juñ toll nii tamit am fi alal sax di kii la de maanaam. mën nañ laa nappaaje. waaw waaw parce ah, ci nanga nuñ lay nappaaje mm. parce que tey jii fi mu toll alal alal ji nga xamante ni moom laa di bi mu démarré rek moom jëlaluñ ko moom boppam mais papaam lañ ko teg lañ teg. sa papa am na alal am na lii am na lii commencé sulli ay histoire yoo xamante ni bii ñu ngi ko commencé sulli di ko teg. Mm-hmm. comprendre nga. yooyu yëpp nga xam ne moom lañ teg te tamit am na ñoo xamante ni bii ñu ngi profité ci kii bi li ma jigéen doon wax. Mm-hmm. peut-être que ni ñooñu sax fa ñu nekkoon ca liggéeyukaay ba. mën naa am nekkuñu ci yoon mais ñoo ñu génn nañ commencé di dénoncer di wax naan nii la nii ak nii ak lii. mais pourtant bi mu génnee ak léegi alaaji man li ma gis ci communication mooy. am na fu mu jaaroon ñu naan ko xaw ma ñun Sonko la ñu wax mu ne pourtant maag yéen ñoo ñoo bokk combat ñoo bokk lu ñu bëgg. waaw kon itam est-ce que. non c'est que xam nga loolu bu waxee ne ñoo bokk lu ñu bëgg loolu moom gars yi duñ ko mën a nangu quoi xam nga ah, gars yi moom ku wàcc ci mbedd mi bokk ak Sonko li nga bëgg parce ah, que mais lu tax lu tax gëmoo la ah, lu tax gëmoo ko non non xamul lu tax gëmoo la lu tax gëmoo la Amadou Ba dong moo ci bokkut ak Sonko xamul lu tax xamul lu tax Khalifa yi saa yu génne daal di wax ne waaw ñun ñii naa waruñu bokkuñ bokkuñ ci complot bi maanaam ku ku génn moom faawu gee am noo xamante ni bi di ko mel ak Ousmane Ousmane Sonko ci benn. waaw ñoom papam ak Alsane Ngom danoo bokk. Ah waaw mbokk la léegi ñoom seen bàyyi ñu ne woon Abdoulaye Ngom bu ma juumul noonu la tudd ah mooy bàyyi ñoom mooy. kii quoi Pape Babacar ak euh, kii ñoom Alsane. Hmm. mais ñooñu est-ce que ñàkkoon na. mën nañ bañ a non non maanaam bi Anta maanaam Anta li muy nettali moom xale la dafa judd ginnaaw gi. ginnaaw gi. mais Abdoulaye Ngom est-ce que il était papa moom expliqué na mooy bi muy def lii. loolu boobu expliqué na fa jaar jaaram ak coowul ndengalee rek waaw pour wax jaar jaaram expliqué maanaam si situation bu doy waar la woon maanaam papaam jàmbaar la boo loo jàmbaar la sénégalais bu jàmbaar la boo xamante ni bii. ñëw na nekk na Sénégal liggéey na ba am li mu am. jaar ci situation. Ah, mais loolu kay loolu la doom ji nettali. pour wane ni non non doom ji dafa ñëw na réew mi fii laa a wax ni la lii laa doon liggéey. loolu politique non non ñiy jiite réew mi. mais au moins ci bàyyam doon na. waaw waaw jiite réew mi moom. wax dëgg fa yàlla son bu ah, xam naa leen. Ah. ñii ñoo ma daan ñaan paas. ah waaw ñaar mi ngi noonu. bugaay xam nga enfant <laughs> gâté. am moom dafa bañ enfant gâté bi lay bañ. enfant gâté bi lay daw. moom lay daw loolu du moom. loolu jarul mu koy daw parce que loolu papa moo liggéey ba am xaalis xam nga tey bu fekkoon ne. enfant gâté bi lay daw jarul muy daw. vraiment xam nga papaam bu liggéeyee xaalisam son bu liggéey na ko ci anam bu lew am. alalam liggéey ko ci mu lew comprendre nga nekk fii sénégalais bu mën a taxaw sénégalais bu mën a taxaw mu jàkkaarloo mu def loo xam ne lu jafe la ci ñu bari def ko muy investir ci réew mi fii borom alal yu bari investir yuñ ci réew mi maanaam loolu fierté la quoi bu mu daw loolu mm-hmm. comprendre nga na ñëw assumer wane ni sama papa moo fi def lii ak lii man maay doomu diw comprendre man nag dama soxla réew mi parce que bëgg naa yóbbu réew mi foo xamante ni fii kii bu ko defee nit ñi bu ñu jëlee image u papaam dinañ ne ah. kii kat jàmbaar la papaam jàmbaar la. parce que papaam def na lii ak lii. mais léegi boo ñëwee di jaay. waaw euh, ndóol bu mu ñu jaay ndóol parce que papaam wax nañu. jaay jaar jaaram mais du jaayee ndóol. wane fi ma jógee la. moom moom jógee wu fa. yow lan mooy sa ah, animal lan mooy sa animal ah. lan mooy sa. maanaam comme ne yeew yow bal bal la ah. moom ñu ne yeew. yeew mooy la Ah, yow jay jaani mag yooyu. waaw jaan ba loo ci wax. am na dafa la nit ku ne am nga sa euh, animal boo xam ne moo lay yee. yow ab xar nga fi mu dëkkoon. ak yeew yi sori xam nga loolu wax na ko nee fi mu dëkkoon nee na fi mu dëkkoon. bëri nay jaan. bëri nay loolu xam nga loolu rek boo ko waxee mais loolu la woon ay yeew ak lu nekk fa nekkoon technopole bi nekk da nga daan yeewu gis watatu jaan bu def nii waaw dafa bëgg wax ni moom nekkoon ci daara ja doomu pël a nag bi voilà borom bi nag euh, ñàkkul voilà loolu tëjee li may tëjee mooy li li alaaji doon wax léegi muy man dama am fu ma nekkoon Pikine ay jamono xam naa xam na ma kooku léegi kilifa la ci kii bii dama doon ñawal ndayam dégg nga maam te léegi ab meer la te léegi ab meer la te booba ba may ñëw xaw ma lu muy def lu sol kilatam toog foofu su ma ñëwee ba yàgg ba ñëw ñu toog waxtaan mu ne ah mu ne Macky du seen morom billaahi dina jël réew mi léegi kilifa la day dagg teen di may dégg naa ko wóoruma musta def dara moo tax ma ne kii. bu bàyyam nekkee eh, eh, <laughs> lenn démb. tey su laajee mooy xamoon nañ li bàyyam di liggéey te kooku ma lay wax tey ab maire la. Eh, mi ngi may seetaan te booba yàggul li may ñëwee Pikine yàggul. yàgg na maaru ñawal ndeyam yàgg nga tëjal <laughs> yàgg na a dee ni ngay mën a tooñ toog yaakaar naa xam na maire boobu su ma juumul ñu ngi koy di ko ñaanal dégg naa itamit xaw ma lan euh, auprès des la de ci inondation yi mm, sooybu waaw auprès la euh, auprès régi ñu ngi leen di jaajëf ah ma tàggoo tëjal ka waa tëjal <laughs> <laughs> xam nga nii nga defee sa xarit yi ci commentaire ba di ma waxati musiba tëjal nga baj ah voilà très bien <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jaajëfal ni ñu bokkaloon plateau bi di wax ni rek ñu ngi leen di remercier di nuyu euh, remercier El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye Diallo Fallou ak régie bi yëpp waaye di remercier également logistique bi Aïcha Anne maa ngi lay nuyu bu baax di souhaiter un joyeux anniversaire à Ndeye Khady Goumbala c'est de la part de Fallou bu solution Ndeye Khady Fallou nee na mi ngi lay souhaiter un très joyeux anniversaire di la ñaanal une très longue vie waa Fallou bu solution moo fi jaar souhaiter un joyeux anniversaire ñu jox leen daje lundi incha allah ci kattanu yàlla.